al madina travel salum jidda sen info international ak tarixa tijaniya in america si njiital suñu imam Mouhammad Muntaqa Sakho ñoo may émission bu mag bii di seen diine bismillahi arrahmani arrahim an sayidina abi sang àndandooru yonentu sallallahu alayhi wa sallam abubakar siddiq qaala mu ne yaa ayyuha nnaasu ee yéen nit ñi innakum la taqra'uuna haadihi l aayata naka yéen da ngeen jàng laaye jile yaa ayyuha alladina aamanu ee yéen ñi gëm yàlla alaykum anfusakum toppatoo leen seeni bopp laa yadurrukum du leen mën a lor man dalla ku réer na ida htadaytum dem jub ngeen yaa ayuha alladina amano e yéen ñi gëm yàlla aleykum toppatoo leen anfusakum seen bopp laa yadurrukum du leen lor man dalla ku réer na ida htadaytum dem jub ngeen wa inni wante man sami'tu dégg naa rasulallahi yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu yaqulu muy wax inna naasa naka nit ñi ida ra'awu zaalima suñ gisee tooñkat falam yaxudu ala yadayhi te jàppuñu ci loxoom aw shakka an yacummahum llahu bi aqaabin min soo moytuwul yàlla boole leen mbugal ñoom ñëpp aw shakka dana jamtulu aw shaka xaw na aw shaka lu probable la an yaumahum matala leen laahu yàlla bi iqaabin ci mbugal minhu bu tukkee ci moom rawaahu abu daawud wa tirmidi wa ñoom ñii ñëpp solo nañ hadis bi asanida saxiha ci isnaad yu wér seydna abubakar li muy jàngale fii mooy ni mu gisee nit ñi di jànge laaye ji lim gis nit ñi déggee ko ci laaye ji laaye ji doxut loolu maanaam toppatool sa bopp rek keneen kuy def leneen nit affaire am la du la lor déedéet alquran mooy firi alquran xadis di firi alquran na nga toppatoo sa bopp waaye xamal ne say mbokk it lëf lañ ci sa bopp nga def la nga war a def toppatoo sa bopp firiwul ne da ngay jaamu yàlla rek te doo digle lu baax soo ko waree digle doo tere lu bon soo ko waree tere ndax loolu sax ci toppatoo sa bopp la ndax dees la koo digal kon nag soo gisee tooñkat nga mën a jàpp ci loxoom jàppal ci loxoom nga mën koo digal digal ko soo demee ba mënoo digle mënoo tere mënoo def dara yonentu sallallahu alayhi wasallam nee na li gën a tuuti mooy naqarlu ci xol na yàlla may ñu yàlla ya rabbi sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim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 boroom xam-xam bu mag bi nga xam ne tey mooy jàngal ndaw ñi di jàngal mag ji ki miin Makka ak Medinatul Munawwara nee naa la imaam Muntaqa saako mooy éviter mbokki jullit yëpp ci Staten Island ci jumaa ju mag jooju nga xam ni mooy masjid al muhajirin wal ansar nee naa la mu nga nekk ca 740 Delafield Avenue ca Staten Island nee naa la masjid bu mag boobu imaam Muntaqa saako ku ne xam ko ci lislaam moo tax béréb ba dem nañ ba bëgg nag building bu bees tàq boo xam ne nii bu ñu moom la ngir lislaam bi mbokk yi diine boobu ñuy wootee muy diine fundraising nee naa la ñëwal joxe sa alal waaye ñu servir nag nga lekk mën a déglu sa diine waaye jël la nga am def ko ci yoon yàlla Imam Mountakha saako bis ba si na kañ lay doon yemook samedi décembre 23 2023 ah mbokk yi nag heure ba day teel a tàmbali ban heure lay doon cinq heures bëgg na ñëpp teew ca béréb ba ndax su ko defee la ñu fay dajale ñu mën koo dajale daal di mën a teel a delluwaat nag ndax ku ne xam ne ne satan ay leen lay xewee kon mbokk yi lu ci waay am te bëgg ko cee def te sori jëlal numéro zel bi ma lay jox 347 265 7703 loolu mooy numéro zel bi 347 265 7703 mbokk yi nee naa la bëgg nañ building boo xam ne nii tey képp koo xam ne nii tey ñëw nga wala nga bëgg a jàng sa lislaam da mën a ñëw ci béréb boobu moo tax ñuy woote fundraising boobu kon mbokk yi jël leen ngeen gaaw ñëw def seen alal ci yoonu yàlla Imam Mountakha Sakho woote na ci taxawaayu ndimbalu ICFA kon nag mbokk yi bu ko kenn tardé noonu woo nañ leen ci te yaakaar naa képp kuy këru diine te nekk ci cinquante états yi rawatina ci biir Amérique rawatina New York City ñu ngi woo ñëpp nag rawatina consulat yi ak association bépp organisation bu nekk ci dëkk bi bul tardé bis boobu le 23 décembre fii ci Staten Island